remercier bu baax infiniment le président de la République Macky pour la confiance bi nga xamante ne nii jox nañu ko waaye it ak ba pare waaye it sas bi ñu sas dañuy jël mesure bi mu jël la nomination là on la prend avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de responsabilité ndax ab sas la ba mu sas sas ko waa Mbàkke kon nag loolu dafa laaj ab liggéey laaj taxawaay laaj engagement bu ma sëkk jàppale ko ci li nga xamante ni moom mooy suñu feuille de ak li nga xamante ni moom la ñu dénk ci wàllu ministère jëriñ engagement bu baax a baax pour accompagner ko nag gën koo jàppale loolu nag maa ngi ñaax ndaw ñi ñaan jigéen ñi naa ñi ñaax jigéen ñi naax ñi ci ñaax waa Mbàkke yépp pour ñu gën a mobiliser wu gën a jàppale président de fii ci département de Mbacké ndax loolu nag lañ ko mën a fayee jàpp naa ne war nañ ko gën a jàppale xam ne am na ci yéene ci waa Mbacké am na yéene ci département Mbacké am na yéene ci Touba am na yéene ci sëñ Mountakha ak kilifa yi département bi yëpp loolu nag day laaj ñun tamit ci lu ñu war ñu jàppale ci ba mu sëkk. ba yéene gi am si ñun ak yaakaar gi mu am ci lu koy jottam di sant enfin la population de Mbacké dans sa diversité et sa globalité wax naa ko ay yoon ay yoon yoon nee naa sama diggante ak Mbacké du politique sama diggante waa Mbacké du ay élection du ay relise du ay résultat ci élection dañoo cofeel di ñu jàppale ba pare it dénkuwul maire Mbacke loolu kum doyul daanoo doy kon waa Mbacke man aw ma seen fay loolu xaaruma xaaruma ba doo wax loolu wax naa ko ay yooni yoon ndax xaaruñ pour am nombre tànk ci politique dañoo ne dañuy engagé pour liggéey Mbacke engagé wu pour liggéeyal waa Mbacke lu ñu si fekk nag ñoo xam ne yàllaa ko namoon ci jur waaye ñun politique ñu pour ay am ay position wala pour am ay poste de responsabilité dañuy politique pour fexe Mbàkke cëram wala cër bi war a am ci réew mi mu gën a yokk cër bi waa Mbàkke war am ci réew mi mu yokk xaar kanamu dëkk bi soppeeku programme ak projet yi état bi euh, taxawal mu am mu agsi Mbàkke waa waa Mbàkke yëpp gis seen bopp ñun loolu moo tax ñuy politique loolu moo tax ñu jàpp waa Mbàkke fas yéene ànd ak ñoom muy guddi muy bëccëg fexe ba seen i ak seen i ñu nekk seen ay bayfaal nekk seen ay jëwriñ de liggéeyal ba lépp li ngeen bëgg incha allah ñu mën cee taxaw bu baax a baax a baax j'ai bien entendu le message de la jeunesse man ak xale yi moom du tey ndax ba may door di politique dañ ne Gallo xale yi dong ñu ànd ak moom loolu nag daa daa sax te daa law kon nag yàlla yàlla mottali suñuy yéene ci yéen mottali suñuy yéene ci waa Mbàkke yépp yàlla may ñu ndam te it li nga xamal a ñu dénk ngeen ñaanal ñu ci bu baax yàlla may su ndam bu yaatoo yaatu ndax suñu ndam mooy nabal Mbàkke suñu ndam mooy nabal yoon wi mooy nabal département Mbàkke yépp moo naa ne mooy nabal région de kon nag fi may daanale waroon faa njëkkee mooy sant bu baax samay waajur bu baax a baax di daal ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér ndax it fépp fu mënti yekk ñoom mën naa ne lépp ñoom la kon nag ñu leen koy delloo bu baax a baax di nuyu bu baax it di ziar sëñ Abdou Fatah sama sëñ di ko di bëgg di ko bëggee saa su ne di ko sant si ay ñaanam ak jàppaleem ak taxawaam ci ci ñun man moom Mbàkke li ma fi li ma fi jot a def ça avec toute modestie toute fausse modestie à ci taxawaayu taxawu xale yi Mbàkke ki fi mas a am ndomba tànk ba 2012 ñoom ñëpp buñ boo def ci ndawi Mbàkke ma def te booba te booba man nekkuma ministre nekkuma leneen kon nag damay sant bu baax képp ku ma sam ndomba tànk ci Mbàkke tous les ministres yi ma sa jaar Mbàkke ñi ci génn àdduna ñu leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen leer ndax it fiñ tey fiñ jëlee Mbàkke seen taxawaay ñoom génnu ci seen engagement ci Mbàkke génnu ci di santit bu baax le ministre Moussa Sakho jàpp yàlla may ko du fara àggale ñoom seen yéene àggale seen jëf àggale seen mébét muy man di keneen kenn du jeexal lépp kenn du matal lépp da def ay jéego def ay pas ci sa dëkk ci sa askan ak ci say mbokk ak ci say waa ak say ak say population ba fa ko yàlla yemale keneen ñoo moo tali kon nag ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ñëpp ñu leen di gërëm bu baax ne man je suis le détenteur maanaam damaa ñëw pour nekk seen héritier nekk seen doom ba fi nga xamante ne farante woo seen tànk ci lu baax ma jëm fàtte sama tànk ànd ko ak waa Mbàkke yëpp